utum solution moo ko fi teg ci réew mi ñu ne kon moom boo càmbaree ay stratégie dafa jël li nga xamante ne Sénégal moo ko moom muy suñu appareil judiciaire muy maanaam suñu kuréel bi yore yoon def ko ab yatam di direct dóor képp koo xam ne bokk nga ci kujje gi ndax buggul kujje ndax ñemewul kujje moom mbër la moo xam ne day bugg mooy bàkku bëre bi moom day bëre takkandeer moom kese mooy bëre mooy daan mooy gañe bi ñu seetloo loolu ñu ne ah ndax kat am na ñu fi jot a jàll ndax seetlu nañ kaawu kii di euh, Karim Wade seetlu it kaawu Khalifa Ababacar Sall waaye lu tax tey nguurub Macky Sall bëgg a profité ci benn affaire boo xam ne ñaari sénégalais la ñoo jote ki jiiñ kii ñu bëgg cee profité. fexe ca naka lañ ca mën a def ba éliminer ki nga xamante ne nii candidat la leaderu parti la maanaam aujourd'hui ku mu neex ku mu naqadi ku bëgg ku bañ moom moo sol costume chef opposition mu bugg fa jaar ci porox ndoll googu profité ko éliminer ko ci loo xamante nii affaire judiciaire la waaye nag ñun ñu ne cette affaire maanaam mbir mii nga xamante ne dafa opposé Ousmane Sonko ak Adji suñuy organisation bëgg nañ mu leer bëgg nañ xam mbir mi nu mu demee nu mu tëddee waaye di ci xel mi tey rek mooy dañoo wóoluwul justice bi wóoluwuñ ko benn yoon ndax du benn du ñaar du ñett du ñeent wane na boppam ne moom justice bu féete la yat la bu nguur teg di dóore kon bi police gendarmerie yónnee Ousmane Sonko convocation moom mu ne demut teg ko ci ay article yoo xamante ne ndeyum charte moo ko ko may gis nañ ne ñoom seen i pexe mooy jéem a fexe nu ñu violer loolu ko ndeyu charte mu may ñu ne nag ah attention duñ ko nangu noonu nga defoon Karim Wade noonu nga defoon Khalifa Ababacar Sall noonu nga rajee Sonko sax ci liggéeyu kaayam noonu nga fi jàppee Guy Marius noonu nga fi jàppee Babacar Diop Karim Xurum Xaq Boubacar Seye assan Diouf noonu nga fi jàppee ay nit ñu bokk ci Y'en ak lu ñoo lànk ci rek yóbbu ab lettre pour yëgal autorité bi ne ko dañoo bëgg a manifester wala yóbbu ko ci benn bureau ne ko wàññil say njëkk ndax cher nañu dafa ëpp kii nag fan nañ jëm ak moom bu fekkente ne moom yat wu ne pare na koo jël làbbali ko ci kaw képp koo xamante ne ni yow pare ngaa taxaw jàkkaarloog moom pour xëccoo ci xëccoo boo xamante ne ni loolu la la ndeyu charte réew mi may ñu ne nag noo attention ñun loolu mënuñ ko setaan ndax nag kat ci procédure bii nii dañ cee gis dañ cee seetlu ab façon boo xamante ne nii nguuru Macky Sall mu ngi koy bugg a def ci ab muusu ak akum tappale pour fexe maanaam ba élection yii di ñëw mu jaar ci porox ndoll moom dong mu doon candidat wala sax moom mu créer propre opposition am tegal ñu fi ay xeer ak ay xur dabb ba askanu Sénégal duñ xam fan lañ jox seen bopp ñu ne nag loolu ñun duñ ko setaan kon nag muy FRAPP muy FDS muy Y'en a marre mi ngi woo képp koo xam ne doomu senegal nga ne fii ak nga ne bitim réew ngay góor ngay jigéen ngay mag mbala ngay ndaw mi ngi woo képp koo xam ne ci syndicat nga ne di woo képp koo xam ne ci parti politique nga ne di wax ne nag jot na jot na bu ñu seetaanee réew mi dina nasax bu ñu seetaanee mag yi dinañu takk ñu ñëpp ay buum di ñu na ci mbedd mi def ñu ay xar kon nañu pare ndax loolu pare wuñ koo nangu ci benn yoon ñu ne ñi ngi woo suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi di leen wax ne ah kilifa diine kilifa aada ci ci ab dëkk am na solo am na solo waaye solo bi ñu bëgg tey mooy ñu dimbali ñu ba kii bëgg jël réew mi taal ko ñu wax ak moom ba kii bëgg a jël réew mi yóbbu ko fi ngay wooyee fu fu ndox dul am ñu artu ko ñu ngi koy ñaan kilifa yi ndax ci fan yii fi ñu jógee li ñu seetlu ci Sénégal mooy ne a ah, Sénégal fi mu jëm baaxul Sénégal fi mu jëm baaxul kon ñaan nañ ko kilifa aada yi kilifa diine yi ñu waxtaan ak moom mu delloo si xelam ndax am na solo beneen bi nag mooy ñun de ñu ngi koy accuser maanaam ñu ngi koy jiiñ ñun jiiñ nañ ko ne jafe-jafe yi ne ci réew mi tey jii nii du kenn ku dul moom moo ñu ko yóbbee amul kenn ku ko mën a laam-laame amul kenn ku ko mën a nattable ndax loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li am moo tax nag ñu ne am na lu tolloog cinquante et un personnes ay jeunes ay ndaw yu ñu jàpp ci ay manifestation yoo xamante ne jàpp nañ ne police moo leen provoqué ndax ay partisans lañ ay Sénégal lañ ay sympathisants lañ yu dem seen bërëb taxaw fa ñu fekk leen fa cokaas leen indi leen jafe-jafe ñi nii tey ci kaso bi ñenn ñi ne ñu ngi leen di torturer nañ leen bàyyi ñu dem ñibbi seen i kër. et tout de suite le seul responsable maanaam kenn kese lañ moom lañuy moom la ñuy jiiñ lii yëpp mooy ki nga xamante ne ni moom force la xam doole la xam ndax newoon na bu ngeen takkee ay morceaux yu xonk man gisuma ko faalewu ma seen ma morceaux yu xonk man guerrier laa ragalu ma ak nangami sàngam ku bëgg ay la ku bëgg jàmmar loolu ku bëgg histoire la na bàyyi askanu Sénégal ci jàmm na libéré nit ñoom ñu dem ci jàmm ñetti kaay yi ñetti kaay yi leen dong lañ bokk mooy ñoom ñett ñëpp ay opposants lañu woon loolu kese lañu bokk l'affaire Karim Wade à l'époque demande sociale la woon sénégalais yi ñoo namoon ñu dem jëli ji lañu moom ci li ñu wax ne dañ koo sàcc ci luubal ko ci alalu réew mi je me répète ci kaaw Karim askanu Sénégal moo ne woon demande sociale dañoo bugg ñu récupérer lépp loo xam ne koom-koomu réew mi la te ñii fi nekkoon doon ñu jiite nasaxal nañ ko état bi takk ay rajoom jaay ñu benn dossier jaay ñu ay milliards yi milliards yu Karim Wade luubal jël suñuy milliards it jox ko Antoine mii mu jël la roppalaanam wër àdduna bi yëpp kon ñun askan li ñu mënoon mooy lu xaar finalité bi ndax ñoo ko sàkk woon waaye fi mu mujjee neexuñu fi mu mujjee dafa mujjee doon loo xamante ne ni benn nit boo topp la ba tey nga exilé ko génne ko dëkk bi xamuñ ci yan condition kon cas bu bokk ci kaawu xalifa Sall dañ ko jiiñ mu am possibilité teg défense am mu toog ne waaw mu am lu mu nangu ca lañ ko jiiñ ne demeewut na ngeen ko waxee mu def conférence de presse am ne man liñ may tuumaal liñ ma ciy wax demee wu tey noonu nii la demee nii la demee nii demee mu jox ci ay leeral munoo koo tëkkale munuñ koo tëkkale ak kaa bi ci cas Ousmane Sonko bi nga xamante ne affaire de mœurs la ci affaire de mœurs bi moom toog na nee na loolu amut bokkut il faut ñu tëkkale cas yooyu waaye ci procédure bi ni mu demee dañ cee jàngat ci ñaari procédure yu njëkk ya on a compris aujourd'hui que Macky Sall n'accepte pas que benn leader émergé de l'opposition pour mun koo faag xatal ci espace bi bugut ko moom kay nañ nekk ay ay ña ay xuusmaa ñàpp ñu mën a manipuler ak ñu mën a jënd pour mu mu leen bàyyi ci seen jàmm bu amee ku dëggal boppam faw mu utul na taqal on est tous responsables ñun ñëpp ñoo utoon demande sociale pour mu jàpp Karim ni finalité bi mujjee neexuñu on est tous responsables ñoo buggoon mbirum xalifa Sall leer fa mu mujj mooy ñu bafooy ay droit am fa mu mujj mooy ñu def ñu nasaxal ay droit am moo tax ñu ne la wóoluwuñu justice bi donte bëgg nañ cette affaire mu leer wax nañ ko bu baax baax mi ci lettre mi ngi ci kayit gi nee nañ la wóoluwuñu justice bi donte bëgg nañ histoire bi mbir mi leer waaye ñaari parti yu am la kii wax na kii wax na mais ca na état doxalee daf ñuy fàttali la fi amoon ku ndóbin rey sa maam nag foo gisee lu ñu da ngay daw xoddeeku balaa ngaa lakkale moo tax du ñu xaar ba mu ne këtt na jon muy dal suñu kaw moo tax ñu ne suñuy organisation yii bëgg nañ justice bi def liggéeyam ci ni mu waree ci anam bi mu waree pour mu grandir suñu démocratie nañ càmbat mbir mi ba mu yegg waaye du ñu nangu état làqatu ci ginnaaw pour xoqatal un opposant encore une fois de plus pour leeral terrain bi ci mu mu yomb loolu loolu la ñuy wax ah. non on on Pape Moussa. Pape Moussa les autres ont posé la question ah. oui donc Pape Moussa may ñu quoi d'accord. xam nga pour être très clair pour être très clair nekkuñu ci soutien d'un individu on est sur des principes démocratiques nous soutenons la démocratie de notre pays les droits ci suñu pays nous soutenons l'état de droit nous soutenons les libertés privation de liberté yi am jamono ji nii loolu lañu ñu soutenir ñun donc il faut mu leer moo tax wax nañ la ko nee nañ la affaire bi bëgg nañ mu leer waaye it du ñu nangu leneen làqu lakku ci ginnaaw li la wax kay dafa leer beneen beneen beneen beneen beneen question bi ma ma ma bàyyi la nga ñëw peut ah, ah. terminer. parce que sinon après. waaye question bi. waaw la rue ou la rue ou loolu moom bu ñu ci yeggee dinañ la wax waaye li ñu wax mooy que les sénégalais se tiennent prêts na sénégalais prêts taxaw bu ñu nee acca ñu ne acca boo xeex ak nit mu pare da pare ne moom xam nga fi ñu toll ak Macky Sall lan la wër ba dem na këng wax mag kese la jàkkaarloo moo des jàkkaarloo nag anam bu ne la bi ñu sabab bi ñu sabab bi ñu am yéene mooy bi ñu woo suñu ay guides religieux ñu dem wax ak moom mu nekk nit mu bàyyi li mu nekkee bañ taal dëkk bi bañ yàq senegal booboo ñu gënal bu ñu joxul boobu bum ñu indil ñu jël bum ñu indil ñu jël bu ñu woyee ci mbedd mi fekk ñu fa suñu woyee ci waxtaan ñoo ko gën a bugg wax fop ëpp ko wax